à l'unanimité le chef de l'opposition Amadou Ba euh, génn euh, def na ko sorti exactement euh, Amadou Ba qu'une néna mais mi ngi won si de jëloon congé alors Serigne Bala ñoo ñow ci dire dañu ñow exactement sur la forme né dafa jëloon congé un opposant wala kon un leader politique dafa jël congé. <laughs> congé lan. dafa jëloon congé tok si ah Amadou Ba mo la wax moy chef de l'opposition mais il est sorti en deuxième justement. ah mais est-ce que est-ce que mais mais mais mais xam nga xam nga chef de l'opposition moom amagul ben définition ah. mais ku top ci président bi mom la. waaw mais pour mais mais amagul définition il dit amagul définition de chef de l'opposition mom man mënaguma koo. mais ñu jox ko Bougane ben yon nak hein? comme ni jox ko Bougane. Bougane man. Bougane Gueye dani ah Bougane mënoo dani mam gor Goor. ko ganu mané ne dañu maam ah ok ah dama ko tag <laughs> non Bougane des na Bougane bu doon mooy chef de l'opposition bi du langaamu. bu doon chef de l'opposition non non non du langaamu. minute yàgg na fi nek chef de l'opposition opposition pare langaamu coalition. wa mais man nak suma don chef de l'opposition opposition du ma langaamu si kenn. Serigne Sonko dafa langaamu si coalition ci euh, élection législative de. Euh, présidentielle yi ñu coalition jomay 2024. quoi coalition là. élection. législati euh, euh, présidentielle yi ñu génn coalition Diomaye 2024. waaw en 2017 aussi euh, jot na. waaw léegi différence xam nga la mooy différence bi. ok yow tekki nga wax jëpp Sonko la nga amul de Sonko la nga amul. Hmm. est-ce que xam nga fi ma bëgg a waxee dañoo bootu si moom. moo ñoo fekk si ko. dañ koo fekk si moom dafa créer yoonam nekk ca kanam ay nit mu bootu ca moom. maanaam mi ngi mel ne mu yor sareetam di dem. ay nit ñew yéeg ci kaw saret bi saret bi den yóbbu mais gan deful dedet bu gan deful bu gan bu don da créer son propre chemin di dem ay nit ñew fek ko ci dab ko ne ko dañu bëgg and ak yow bu boba kat di nga ko wax di nga wax ni botul, mais Sonko botul ci kenn de botul ci kenn ay nit ñoo daw ñew mu bot len yobulen ci élection yim dem yépp à ah, ce que je sache mais dama ne la Bougane bu doon maay chef de l'opposition du ma bootu man kay li ma wax c'est tellement clair damay demal sama bopp lu ma am jël mu mën a sax garder suma cohérence mm, ak mm. suma objectivité man loolu laa gëm ah alors dina ñëw si Bougane mais Amadou Ba mu ne dafa jëloon benn recul di observer de loin mais lu mu jot a gis dalul xel dem na sax ba jàpp ni ñi fi nekk nii euh, danoo xaw a tële exactement si kàddu gi nga xam ni itam yëkki na ko sëriñ Amadou Ba ne si def ba dem bay conseiller euh, peut-être expérience premier ministre mais premier ministre ni ak ni la wara a Amadou Ba politique la nara def xam Amadou Ba du son du mais mais mais il doit exister. non dañ ko ci pousse dañ ko ci pousse Amadou Ba li du personnage am personnalité mais nak day dem ba day am ñu nekk sa ginnaaw ñu lay pousse génnal ngay imposé wu yaay yaay yaay yaay yaay yaay yaay le chef de l'opposition yaay nangam yaay nangam yaay nangam xam nga discours bobu lay top tu as vu hmm. motax tax Amadou Ba buy exprimer wu comme buy yëkkati yenn kàddu yi si nit sa da ngay xam ni nekkul à l'aise parce que bokul ci ay habitude am nak ak loo ko caricaturer caricaturer Amadou Ba wax ju ñaaw wala wax ju ëpp bokul ci ay mbiram tu as vu maintenant nag demoon na mais il doit s'imposer waaw mais même là leur wax nii mm. tout bas il doit mm. s'imposer mm. mais nag pas à un certain niveau quand même. tu as vu mais mënuloo wax ni ñi dañu cuune il cuune moo tax yow nga demoon élection sénégalais rejeté la dit non mais il est sorti avec. Euh, mais porte. non mais gagné où 34 mais gagné rek c'est pas évident ces élections mais mais où waaw gañewul mais 34 waaw mais gañewul Macky lu yës 25 pour le tey la nekk président de la République mais mais élection yi élection kii la nag de élection yi moom sa waay Macky en 2012 25 là. cent la mais élection yi moom ñëpp xamoon ni, ni ni muy ni muy demee quoi waaw nu mu demee élection yii ah mais ko luubal woon yii nii waaw luubal waaw luubal si lan maanaam nu mu élection yi nu mu demee si si yu ñu génn nii si Amadou Ba ak 34 pour mais Amadou Ba ak 34 yi mais xam nañ ni c'est c'est c'est Macky Sall quand même Fallou c'est Macky pas Amadou Ba Amadou Ba amul base pour yow da xam base hmm. am Ba xam nga base te élection yii locales yi day leeral lépp Amadou Ba n'a pas de base politique Amadou Ba bu dee 34 pour cent la jàppal ni 1 pour cent la ci am 1 pour cent yi sax dañ koy xoolaat mais Amadou Ba nañu wax dëgg man estimé naa ko nag wax dëgg yàlla ndax am na yar am na teggin. te am na xam-xam mais amul nag aura base politique amu ko Amadou Ba xamuñu ko sax Amadou Ba am na Sénégal yu bëree bëree bëri bëri xamuñu ko de xamuñu Amadou Ba loolu maa la wax Amadou Ba la mu demee élection pré locale yi ñu génn c'est l'électorat du président Macky Sall c'est l'électorat du président Macky

waaw mais xam nga Amadou Ba lu tax mu génn c'est parce que tout simplement dañu jëm ci ay élection locale législative du moins ci ay élection législative lañ jëm hmm. Hmm? ku si nekk fi mu toll nii da ngay wër foo taxaw ak foo jaar te wax naa la léegi Amadou Ba nee naa la sorteem yi muy def nii yëpp dañ ko koy dañ ko dañ dañ dañ ko koy wax rek muy def Hmm. tu as vu. Oui, mais pas pas koy wax de non non non non Amadou il n'est pas comme ça Amadou il n'est pas un politicien Amadou Ba un politicien même si campagne élection présidentielle il y a yow étudier ses discours Amadou n'a pas le discours politique amu ok communication politique bobu nekul ci Amadou Ba da koy jëm un mais tax buy politiques moo politique yooyu hein, affaire bi ni wara y a safee non safee par rapport ak les véritables acteurs politiques bu ñuy exprimer si sur l' espace politique da ngay gis expression politique bi ni muy dégagé woo mais Amadou Ba n'a pas ce vocabulaire là. Hmm. non non il n'en a pas il n'en pas.

dimanche. dimanche peut-être espérons. espérons conférence de presse bi def ni rek. Hmm, ah, mais ah. campagne déguisée campagne ah mais conférence de presse dafa bëri tamit hein chaque semaine chaque semaine ci deux conférences de presse wala trois. alors exactement. Ah, ah mais dégg ah. j'ai reçu l'information alors. comme si que euh, le dimanche samedi defe naa dimanche. dafa ci ci loolu lay wax ah, par rapport ak euh, chiffres yi chiffres yi. waaw defe naa euh, waaw loolu laa gis. ñu ngi ko siy xaare nii mais dafa am benn information tamit bu ñu dab exactement ginnaaw mbiru ki nga xam ne moo di Amadou Ba El